bokki ma ngi nuyu ñep di séré ñep di bal ak ñep di sakku ñaan rek julit yep ñu ñaanal serigne Mor Diop jangale katu alquran bo xamne ne mës a alquran ak dara dar euh defon dara ju reey reey yoo xamne ñu bare bare bare bare bare mokk leen fa alquran mokk leen war ay daara yi juddo ci ay daaram daaro yo yenen daaro juddo watte mu liggéeyel sëñ tuba ci l'islam ci toolam bii di alquran liggéey boo xam ne yoonu murit gii bokk na ci liggéey yi ndamo kooku nag moo wàccub liggéey ñu war nag delloo ko njukkal kon dongab daara bu mën a jàngub kaamil jàngal ko ko daara ju mën a ànd bokk jàngub kaamil nañ ko ko jàngal koo xam ne mënoo lool nga jàngal ko ñeen fukki suratul ikhlas ikhlas bu naan ak bismillahi rahim te ko ko nga julil ko ñaar rakk yooyu ñuy defal ku génn àddina waaye daal képp ko alxuraan ñor lu baax ñor la war nga ko fàttaliku war nga koo ñaanal kon dong koy sàkku ñu bokk julit yépp rawatina bokki taalibe murit yi rawati ak sëñ daara yi ak ndongay daara yi yàlla yàlla jéggal yàlla yàlla yërëm Serigne Mor Diop te dolli ay leeram te wanale ko Cheikhul Khadim nu mu gën a gaawee ci barke Serigne Touba.